bëgg a rey nit ñi ci koñ bi ñu ne dañ koy forcer sangu ko mu ne déet bàyyi leen comme daa sedd bàyyi leen ma dem ci àll ba wuti matt ñëw ta tàngal ndox sangu nu ne ko demal dañu yomb ci àll bi yem ci gaynde goo xam ne toog na ñaari wéel lekkul dara gaynde gi dañu ko jàkk mu ne ko jàkk gaynde gi ne ko jàkk mu ne ko jàkk gaynde gi daa jékki-jékki yuuxu ko sa waay dañu bërit gaynde gi sex fii fii karaate laa daan def nag moo tax tànk bi neex dan maa mës a dóorub épicule ma ñàkk ci ñaari faar moo tax ma bàyyi bi gaynde gi seexee fii yëngal yëngal yëngal ba mu yàgg jékki-jékki daal di yàbb moom gaynde gi daw jaar nii sàcc bi daw aw nii sàcc bay daw di dem yoonam gaynde gay daw di dem yoonam ndekete gaynde ga marché caarooy la jëm dawa daw ba marché caarooy dañuy yomb ci marché bi na tàkk ci kaw taabal yi mairie ak paa yi naaw wuy gaynde njaay lay lay la laaw wuy fu nu jëm ay waay deenal lay lay lay fu nu jëm ay waay deenal woo woo waa gaynde gi ne bu leen daw daqaar laa jënd sama xel mee teey jërëjëf kontaan nanu Moustapha yàlla na yàlla dool jàmm Lat Diop yàlla na suñu borom dool jàmm bég nañu lool yàlla na yàlla defar lépp réew Moustapha Diop moo sama maire man xam nga man ngumba ak yow laa dëkk boo demee diggante tobbeeg njabi gàddaafi xàll mbaan kàndala tuube guyóot bella xor ndaat njaloor njeng jëw xasim ndàggante tukulóor tëggandogi peex taal yang-yang taal bax la yaxi ñay cuurun mbadaxun kër aram bopp coor ñanu leen ba feeb mooy njiit la <laughs> xam nga man dan maa tere football xam nga tax nu tere ma football stade Louga avant nu koy defar man milieu terrain bu saf sàpp laa woon ah waaw mais xam nga miir bi dafa amoon clôture noonu rek defaragul woon benn miir bu daan jaay beñe nga xam ne gaz bi ci wetu stade bi la koy teg teg poolu dëwlin di saaf beñe da daan ne foofu benn jour nu jëlee kon Dakar muy ñëw jaay tiitar mu war maa taq ma ne ko mënoo maa taq taas laa def nu dóor ma bal ma teg ci tir genou wàcce teg raaj xaaj jour bi na ne xaaj départ dama ne ko tiib croisé mu dugg ca biir boolu dawlin ba ba nii mi ngi principal gi tëdd waa fédération maître Augustin xanaa di ngeen ma baal léegi maître Augustin na non sa père bu xar laa kii ba mu football it nan ko kii nan ko courant croisé nit mu dugg ci boolu dawlin <laughs> maa maa garaaw de <laughs> te nag day loo am solo football Coupe d'Afrique moom nee naa bu ñëwul woon ren ren moom daa waroon a ñëw maanaam da doon loo xam ni daa war a ñëw rek ñëw ndax nag daa jotoon nun daa jotoon nu savouré Coupe d'Afrique il il était temps te jot na maintenant nag il est temps avec cette équipe là que Coupe du Monde daal di ñëw ah te dañuy am gëm-gëm dong de ña koy jël dañ noo gën dan noo ëppi jour dañ noo dàq football ba lu tax mën nu koo jël dañ koy jël dina ñëw nan fexe ba euh, gars yi vaar yéen caméra yi ni ngeen noté lii pour ëllëg bu ñëwee du ne per waxoon na ko <laughs> xam nga daa mës a am benn sàcc sàcc bi Moussa waa sàcc bi tour du monde la def fu mu dem jël fa trophée comme ni Sadio Mané mel ci football rek sàcc bi moom noonu la mel ci sàcc fu dem day ravager kenn du ko jàpp. toj na banque lu ne garde yi toog oto sagaam romb na ko mu dugg ci biir oto bi sàcc la ne ci biir oto ba te garde yi gisuñu ko fekk na mag mu sol ñetti morsom jëm jumaa di julli ji mu tafu suwet maa ba ca biir te góor ga yëgu ko xam naa léegi ñu ne pere mën a meew de waaye directeur lu loon asa toog ak meeru luga Augustin Senghor lu ma neex wax sama meer a toog <laughs> sàcc bi yàllaa ko natt mu ne déet day ñëw ndakaaru natt boppam xool boppam ndax dégg na ni Dakar gaa yi danoo gaaw gaa yi danoo gaaw mu ñëw ba rond-point Colobane daal di taxaw ya pièce cent franc ci loxo bi ne da koy dóor ci kaw xool ba xam gaa yi gaaw nanoom gaawunu mu dee pièce cent franc bi ne ko tar dóor ca kaw pièce bi naaw lu mat ay trois mètres mu ne waa tiib capté daal di téye daan ne ndeke Dakar aayunu dañuy sóob gaa yi dañuy sóob ñaa mu ne ndeke gars yi aayunu dañuy sóob tàllal loxo bi xool muy fukki dërëm ndeke bi mu ko dóoree ci kaw sàcc bi jël na ko ci kaw dugg ci bitik bi jënd ci mbuusu ndox naan ko soog koy delloo fukki dërëm ka koy wàññi yàlla na dee yéen moom am ngeen jaaraama yéen douzième gaynde moom ñee moom ñee moom kenn du ñoom man yéen yan yéen man dama naan li ngeen mën kenn mënu ko gis naa ci koo xam ne day peinture peinture ma ne ndeysaan kii de bu pare bu moytul pétrole dina ko rey ne pétrole rek lañ ko mën a sangee peinture bi dañ kon gàcce ngalaama yéen waaw yéen yéen daal ay ay soldaar ngeen yàlla na leen suñu borom defal jàmm ndax dégg nga ma xam nga daa am sàcc bu demoon ci benn équipe fu équipe de entraîné woo fi équipe de entraîné woo sàcc bi dem dugg di sàcc far ñu ne ko tiib jàpp entraîneur yu équipe bi ab paa géwël la pas géwal te équipe bi génn wàll gi yëpp ay géwal lañu <laughs> tey mu dee de ñu ne tiib jàpp sàcc bi ne dañ koy rey paaw géwal bi génn wogg si trois morceaux bi ne leen mais fils lii du temps lii du temps lii du temps sul yoon kii teral leen ko au lieu ngeen koy yóbbu ci bal beek yooyu déedéet indi leen cuul yëg mbëng mbëngi tungu ne gorom yeeg mbabas yeeg tamit ngeen yóbbu ko kii ku ko xool xam ne ku mën a fecc la sàcc bi ne bëreet na waaw <laughs> mën naa fecc kay <laughs> ñu ne ko dañ lay yóbbu ci temps taxawal sàcc bi taxaw ci temps lañ la yóbbu deenu tontu ci temps sàcc bi taxaw huit heures ci suba ñu ne ko dañ la yóbbu racaca gun gun gun racaca gun gun gun ca gun gun ndax gun gun raj point mu ne waaw huit heures ci suba trente doomi paa bi toog équipe bi ñu téye sàcc bi racaca gun gun heures ñeneen daal di ñëw jël ndënd yeeg sabar yi ñoo ñeneen ña dem toog départ ak moom treize heures rëcc jagut gun gun rëcc jagut gun gun taxul gun la gun rek ñooñu dem ba 18 heures arrêté si ñeneen ñi topp ci ñoom ñëw jël sabar yi continuer sàcc ba rëcc jagut gun gun rëcc jagut gun gun taxul gun la gun gun rek ñooñu dem ba 23h arrêté ñeneen ñi ñëw jël sabar yi continuer sàcc ba rëccëgut gun gun rëccëgut gun gun tawul gun ndax gun gun raj ñooñu dem ba 4h du matin 5h arrêté ñeneen ñi demoon entraînement football yi ñu wàcc ñëw continuer ak sabar yi ak sàcc bi rëccëgut gun gun rëccëgut gun gun tawul gun ndax gun gun raj ñooñu dem ba 9h ci suba arrêté jël sabar yi yëpp këpp jël galaña denc moom sàcc bi képp mu taxaw fam taxaw rëccëgut gun gun rëccëgut gun gun cagur gun ndax gun gun raj paa bi génn xool ko woo benn ci gars yi mbay sekk ne ko dimbali ma wool ma médecin Ndiaye mi nekk ci fédération ñu woo médecin Ndiaye mu ñëw médecin Ndiaye indi ñuy xoolee nit xool ko xool xool xool xool ba mu yàgg woo paa bi ni ko kii wool ñiy defar néew nu defar ko dee na démb ci tàkkusaan ñu wooyu paa yi defar néew ñu indi ko summi sàcc bi ba mu set wecc taxaw di ko sang dañoo jël setal ak ndox sotti ko sàcc bi taxaw rëjëse ko ngurngul rëjëse ko ngurngul te ngurngul nu sang ba mu set jël juróom-ñaari mètre pelkaal daal di laxas jàppoo ko teg ko ca jaag ba juróom benn nit jàpp ko ñu naan allah jëm ca armée la sàcc ba ne ca biir càngaale naan eh noppi naa nag ay kilifa kenn du leen reetaan loo yéen reetaan yi ay kilifa day ëpp nga leen waaye yàlla na leen yàlla defal jàmm ñii nii yàlla na leen suñu borom defal jàmm